jërë ngeen jëf amit téléspectateur people 221 ñu siibur ñu ngi leen di nuyu di leen ziar bu baax a baax di leen ñaanal jàmm te di ko saako ci yéen di ñaan réew mi Sénégal yàlla na suñu borom dolli jàmm di nuyu suñu kilifa di nekk suñu kilifa day euh, tey nag euh, ñoo leen ko waxoon dañ koy defaat ñu def suñu déplacement euh, jógee fee nga xamante ni moo di Ndakaaru ñëw fii nga xamante ni mooy Fuuta ñëwoon nañ fi jëloon fi benn kilifa mu di Thierno Boubacar jàlloo biñ ko jëlee nag moo di polémique yu bari ñu bari ñu laaj anamu anamu tey nag ñu déplacé waat dem ba Fouta seeti ko fa seenee waxtaan ak moom sëñ bi dañ lay bàyyi nga nuyoo ñu lay suivre. asalaamaaleykum wa rahmatulah taalaa wa barakaatu maa ngi leen di nuyu maa ngi leen di ne bisimilah bisimilah. Mhm. bisimilah na ngeen dal jàmm bisimilah. Mhm. sëñ bi bala maa commencé ci ci ci ci wàllu ñaan bi lan mooy sa secret parce que dama ñëwoon euh, keroog fekk fi ay nit ay kilifa yu bari. tey nag ma ñëwaat fekkaat leen fi tolof Ndiaye day wax naan ñam naa ko neex na baax na banaa ko amul fenn kilifa yi ma gis ci porte bi nii ñu taxaw fii lan mooy sa secret ak ñoom. waaye bisimilah ah, loolu may yàlla la. Mhm. Ah, ak tamit nangoo liggéey. gëm hmm, gëm liggéey bi xam ko nangu ko ngati kamuñ leneen su dul liggéey. Mhm. ñun loolu lañ doon. Mhm. moom lañu kam. ci lañu judd ci lañu màgg mm-hmm. nga ti dañ ko donn mm-hmm. suñu maam fu mu tàmbale bu fu mu jeex mm-hmm. ñun ci àll tan lañu nekk lañ dëkk ci xam-xam la ñuy yëng sunguuf alxuraan sàmm suñuy nag loolu lañu xam ñii nii am na ñu nga ci xam ne sama maam la ba léegi fii kër gi kër bu mag la dañu fiy ñëw ngati kër bu ñu am yaakaar la. Mm-hmm. ñii suñuy taalibe lañ. Mm-hmm. ñoom ñëpp xëy na boo gisee ñëw fii dafa am lu ñu fi gis lu leen doy tam. Mm-hmm. mu mel ni moo fi mujjee ñëw fekkoon naa fi koo xamante ni kilifa la ci réew mi ñu ngi jëm ay élection mu di député yi ah, nga waxoon ma ni ma kii kenn mënu koo teree falu tey ma ñëwee yaakaar naa moom sax moo ma dalal ni ma xanaa rek maa topp ak sama cortège ma ne ko noo topp ma la xam naa dañ fee daje mu di kilifa goo xam ni keroog avant élection yi waxoon nga ko yow di nga falu te yàlla suñu borom dogal loolu ma fekk ko ci porte maa ko gisal sama bopp ah ñoom bëri nañu fi hmm. hmm, waaye moom dafa yàgg ci kër gi nekk doom ci kër gi. Hmm. terewul am na ñi nga xamante ne dañuy ñëw fii ñoom tamit ci politique bi la nekk. ci nguur bi. dañuy ñëw fekkante fii moom. bokkuñu parti. waaye dama leen di ñaara nga def man sëriñ la. man ñëpp laa fi nekkal. amul kii amul kale. dëgg moom nag xëy na si kër gi la bokk. ñaanal nañ ko bu ñuy ñaan. yàlla dimbal nañ am nañ ci yoon xam nañu lu ñuy def ni day am dëgg la nga ti man balaa maa ngi lay ñaanal dama lay seetal. su ma seetee boo kam. li may def ni am naa ci yoon. te li may def ni dina am. dama lay wax dina am te bu soobee yàlla su ma la waxee dina am dara du ko dindi. dëgg nga ti du ma du ma du ma gaaw wax. dëgg la lu su may wax de fekk mu leer. dëgg la du ma wax mu neex nit. nga ti ku lay wax toogal ma ñaanal la bu nga gis. nga doog ma jox lu lay neex du bu ma jox sa dërëm mm-hmm. téyal sa alal mm-hmm. ma seetal la ma xool sa biddéew mm-hmm. ma liggéey yàlla boo nga gis nga fay ma app bi neuf jours la su ma la liggéeyale si neuf jours yi boo gisee xamal ne man la dëgg la bu ëppee neuf jours xamal ne ndogal yàlla la rek waaye du man dëgg la xay boo ma indilee alal bi du ma jël dëgg la falaay fi may wax lu neex nit dëgg la foofu noonu laay ñëwee ci ci ci wàllu ci wàllu ci liggéey bi ma ñëw fekk fi gënn gi gën gi gënnu aada ak gënnu cosaan euh, lan mooy secret gën bi waaw bi moom lañuy ñuy sunguf yi yëpp waaw hmm, sam sunguf yi yëpp moom lañu koy débbee waaw bu ñu bu may génn di dem jëli sunguf waaw dafa am bis bu ñu koy jëli waaw dafa am yére bu ñu sol bu ñu koy jëli. dafa am waxtu bu ñu koy jëlee. waaw ah boo koy jëlee dafa am liggéey yi ngay def. balaa ngay génn sa kër di ko dem jëli. soo demee ba ci fi ngay jëlee sunguf bi. Hmm. ci garab bi. Hmm. garab bi dafa am lu mu lay laaj te loolu nga koy defal. dëgg la ah da koy neexal. dëgg la. ah yaa xam uh, seetu nga koy jox. Hmm. yow yaa xam dugub nga koy jox yow yaa xam ceeb yow yaa xam kaalis la yow xam parfum yow xam yëre la. te tamit nekkul ñëw nga rek joxe nga loolu nga yëg nga dindi. Mhm. dafa am nu ñu koy ñëwee. Mhm. dafa am uh, benn côté bi ngay taxawee nga dindi ko. Mhm. yaa xam penku ngay féetoo yaa xam foo mën a féetoo moo waral liggéey bi àndul ak taal kilim tëdd nelaw. dëgg la. déedéet. dëgg la fu mu fii mun a jeex ci àll bi. àll bi la moo waral suñu ma wax ñëwal ñëwal. ma ne la du ma mun a ñëw lii moo ko waral liggéey bi àndul ak loolu. àll de ci àll bi fii lay mun a jeexee. dëgg liggéey bi garab garab dafa da koy jox ak kam. dëgg la. liggéey guddi yow sëriñ nga war tëdd nelaw. dëgg la da ngaa war a yor sa kurus ngay wird. dëgg la loolu noonu bu dee nekk nga ci dëkk bu bëri mumbaay. dafa bëri caakaan. dëgg la seytaane moo mun ku nekk. dëgg la boo nekkee sëriñ da ngay daw seytaane. dëgg la seytaane noonu boo daw da ngay moytu. boo nekkee ci àll bi. xëy na lépp li ngay moytu yàlla dina la ci dimbali. nga ti weet na dinga nga mun a jaamu yàlla. dëgg di nga mun a liggéeyal nit ñi lépp loo wax ak ñoom nga mun leen ko defal. dëgg la moo waral ñun ñu nekk fii nii. dëgg la ñu ngi koy sant yàlla fii lañ nekk ci àll bi sori na waaye. dëgg la nit ñi yëpp ñu ngi ñëw fii. dëgg la sëriñ nekkul yooyu yaay daw di jege si nit ñi déedéet mm-hmm. toogal dëgg la bu dee li ngay def lu leer la tan nit ñi yëpp dinañ ñëw fekk si loolu yéen lu leen yëkkati Dakar indi leen fi moo fi indi ñeneen ñeneen ak ñeneen dëgg la ñëw ngeen fi fekk ngeen fi seen mbokk mm-hmm. fekk ngeen fi ay nit yu bëri mm-hmm. waaw loolu la rek dëgg la ci foofu noonu laay ñëw ci wàllu alwa gi parce que dama gis ci yow xam-xam boo xam ne xam-xam bu raar la fii li ma xam ci sëriñ yi mooy big ak fooy lañ yor di bind tey ma ñëw gis nga tiim sa alwa di bind lan mooy sa secret ak ak xam-xam bi nga xam ne dafa raar waaw moom laa doon moom laa jàng bi ma nekk kale bu ñu may bindal ba. Mm-hmm. ci moom lañ ma ko bindalee. ndeysaan xaw ma leneen ñun lii lañ ñu kamal. dëgg la lii barke la ngati boo koy boo koy ut da ngay sonn. dëgg la daaxaa bi. Mm-hmm. bu ñuy bindee. Mm-hmm. boo koy ut da ngay sonn. aha ni lu ñuy defaree daaxaa bi. boo koy defar da ngay sonn. dëgg la moo waral man daaxaa li ma koy defaree xaw nga naat. naat naat. xam naa naat. ñetti naat lay rey. dafa am bis yu nga xam te ne moom laa leen di rey. naat bu ci nekk man kese maa koy lekk. su ma ko lekkee su ma koy rey deret bi du laal suuf damay ut palaat ma teg ci naat bi ma rindi ko deret bi du laal suuf mm-hmm. su ma ko rindee ñu toggal moo ko moom ah, day nekk naat bi nga xam te ne ah, ànd na ak ay nenam waaw ñu baxalal ma nen ma lekka ko ma mm-hmm. lekk naat bi ba mu jeex mm-hmm. yax yi ak dara duñ ko ci sandi karaw naat bi dara duñ ko ci sandi moom la ñuy jëlee noonu yax yi ñu lakka ko dëgg la bu ñu lakkee yax yi ba mu ba mu ñuul. Mm-hmm. moom ak ak karaw bi. Mm-hmm. ak deret bi nga xam xamante ne tuuti moom laa ko bindee moo des foofu. Mm-hmm. ci lañu koy boole moom la ñuy fexe ma defaree ko daaxaa. daaxaa boobu laay bindee coono boobu noonu ngati lu ma soxla. foofu lañ ma ko jaarale noo nii nga mun a def nga am ko. bu ma dem di ko uute nu yomb bu dul loolu du ma am. man su ma liggéeyul du ma lekk. su ma fajul aaju. su ma kër gi ni du ma lekk ngati aw ma salaire. ci laay fayeeku. allahu xam nga nit nit di liggéey bureau ñu koy fay weer. Mhm. man noonu lañ may fayee. suma liggéey bi. Mhm. dama am ay taalib yi nga xam te dama leen sampa. Mhm. samp leen ñu may fay weer bu nekk. ñooñu noonu bu ma teddee nelaw. ma bàyyi seen liggéey ñooñu dinañ perte ñoom lu ñuy. lu ñu seen liggéey. bu ñu ko perte man dinaa perte. dëgg la moo waral dama ciy sonn. dëgg la waaw lii man lii. loolu lañ ma noonu lañ ma ko jàngale moo war a noonu rek laa ko mën a defee. dëgg la alluwa laay bind ci ak daaka. dëgg ma ñëw gis nga yëngal leket gi leket gi nag li ma jaaxal mooy bi nga ko yëngalee léegi mat na 30 minutes mais ba tey fi mu toog di fuur jugu fa mu doon loo xam ni lu ma jaaxal la aussi. waaw leket bi. leket gi bëgg naa yëngalaatal ma leket bi ma xool. Mm-hmm. leket bi noonu yëngalal ma leket bi yëngalal ma leket bi noonu rek laa mën a def. voilà leket bi. yëngalal ma leket bi xool ngati sunguf bu dee nangu na. waaw dafay fuur. waaw aha sunguf bu nangoo dafay fuur. waaw hmm, sunguf munoo munoo am sunguf bu nangu. waaw fekkee fuurul. waaw sunguf sunguf bu nangee day fuur. d'accord ñuy ñëw ci wàllu leket gi lan mooy secret leket gi parce que gis naa ne booba ba ñu ngi koy yëngal mais mu ngi jóg du jug ci di fuur. waaw leket bi lii sunguf la. sunguf loolu noonu moom mooy li nekk lu ñuy liggéeyee. sunguf bu nangoo. dafay fuur. waaw sunguf saa saa yu bu mu nangoo tan. day nekk di fuur. waaw boo defee sungub mu dagg. waaw ñun ci la ñuy xam ne sungub bii ni nangul. waaye bu fuuree dañuy xam ne luñ ciy ñaan dinañ ko mun a am. aajo buñ ciy faj de ciy mun a am. d'accord léegi leket bi leket léegi leket bee di fuur lan lay faj. lii ci alal lay dem. ci wàllu alal la ci wàllum wërsëg la. waaw nit. lii lu ma ci gën a soxla mooy nit bu dem ba tëju. waaw ba kenn xamatul amatul ci moom yaakaar ki nga xam ne. waaw bu mu juddoo. waaw musul xam ban nekku atul. waaw ku ku nga xamante ne nit ñi dañu dem bu amatuñ ci moom yaakaar. waaw ci moom laa gën a bëgg ci leket bi. mooy lekket beenee. waaw xam nga lan moo lay tere mun a am. Hmm. wala tëjee ko nga bañ a mun a ñëw ci man. d'accord su dee sa kabaar narul baax. xay hmm. boo waxee da ngay ñëw ci man di nga am yeneen gàllankoor nga dem feneen. d'accord wala boo nee da nga may wow di nga am yeneen gàllankoor. d'accord doo ma mun a woo. d'accord lii nii ku loolu laa ci gën a soxla neuf jours. neuf jours ma faj sa aajo doo fay dërëm. dama wax nga téye sa alal. ma liggéeyal la ba ma faj sa aaju. nga fay ma dëgg la ci lekket bii nii. dëgg la dama bëgg kamal nit ñi. Mhm. sëriñ dafa am. Mhm. sëriñ dafa am. waaw waaw dama bëgg xamal nit ñi sëriñ dafa am. waaw waaw mhm. sëriñ dafa am nga ñun loolu la ñu xam. loolu la ñu doon. d' accord léegi ma ñëwaat ci ñu koy yàq. d' ñun bokkuñu accord léegi ma ñëwaat ci lekket gii beneen lekket gii di am lu xonk nii. waaw kii nii bani bani la tudd. bani waaw bii garab bi nga xamante ne nit dafa ci yéeg daanu dee. garab bu rey nit la. moom la ñu koy defee. bii waaw kii bandi la tudd bu ñu ko mm-hmm. defee. dafa am yenn yu ñu ciy def tamit ker bu nga xamante ne dafa nekk ci digg yoon. Mm-hmm. nit dañu ci mun a kii euh, dal tànkam dàmm wala tànkam gaañu. Mm-hmm. moom lañ ciy def lii ni ci wàllum xeex lay dem. wàllu xeex wàllu xeex mhm. bépp nit bi nga xam te ne mu ngi la def lu bon parce que sunguf la boo xam ne maa ngi koo gëj a gis ci jamonoy buur yi lii sunguf konka la kii mhm. bani la tudd mhm. lii lu muy def mooy ku dem ci wàllum keex la ku ñu nit bu la liggéeyee dootu ko defati ku la jéem def lu bon wala ci wàllum ay cat wala lamiñ wala ay xeex sunguf bi ni ci moom lay dem. d'accord lii nii xay buñ suñu mag yi buñ doon kay di dem ay batu. Mhm. nga xam te ni léegi nit ñi riño ngeen di wax yéen riño. waaw la ñuy wax. waaw buñ doon dem batu lii la ñuy jël def ko si seen kii yi. waaw boo ko sangoo. nga def ko ak sa loxo. Mhm. boo demee batu bi luñ la fa mun a sandi lu bon. Mhm. wala ñu def lu bon du yegg ci yow. allah lii da lay aar aar sa njaboot. sunguf bii nii. waaw moom tamit loolu lay def. bala maa ñëwaat ci liggéey bi euh, ma ñëw fekk fi ay nit yoo xamante ni tey euh, yàlla sunu borom du ma wax lu ma xamul. waaw du ma wax lu ma xamul. Mhm. damay ñëw ci sunguf bële. Mhm. sunguf bee lan mhm. mooy secret bi. leket bii nii. leket bi waaw tam dafa dama gis. da ngay pettaaw kii nii nit wuy ut. ci wàllum liggéey. waaw wala yaa ngi ut place. waaw wala yaa ngi ut nguur. ci këccoo. waaw xam lan ngay mun a këccoo. lu mu munta nekk loolu. waaw sunguf bii la. gis nga waaw gisoo. mooy wàllu nguur leket bi leket ñu ko defee. Uh-huh. leket bi ci dafa am lu ñu ci def. waaw dafa am ay lu ñu xaatim yu ñu bind def ko ci leket bi. waaw doog ci mun a def sunguf mu toog fu muy tegu tamit. dafa am ay xaatim yu ñu bind gas suul ko foofu noonu. waaw moom la ñu koy defaree lépp li nga xëccoo leket bi mun nañ lañ ko defaral. moom moo ci gaaw. da te li ngay këccoo danga koy am. Mhm. nekkul damay wax ndax di ko ut ay nit. dëgg la man woowuma leen ngeen ñëw fii. dëgg la damay wax ngati dama bugg a xamal ne nit ñi xam-xam dafa am. Mhm. ngati nit ñi ñu ngi yàq xam-xam. Mhm. ñu koy yàq noonu xëy na ñoom donnuñu ko. ñoom seen dépasse yi tëg mhm. moo waral ñu ko yàq mhm. ñun amuñu leneen ci àddina mhm. sudul kam-kam dëgg amuñu leneen su dul lii lu ñuy liggéey nii dëgg moom la ñu kam dëgg la ngati sàmm suñu nag liggéey ak suñu xam-xam bi moom la ñu am moo waral dañuy xamal nit ñi xam-xam ne am na ndax xamal nit ñi xam-xam am na da ngay téye sa alal doomu fay dërëm da ngay téye sa alal ma jox la après neuf jours aajo boo mu mun a woowee ma faj sa aajo ngam xamal nit ñi xam-xam am na ku mu gën soxla mooy ku ñu dem ba lekk alalam mhm. ku ñu xam te ne dem na bu amatul yaakaar ci sëriñ mhm. ku dem ba sonn mënatul am dara ci addinam mhm. kii nga xam te ne dem na bu décourage moom laa gën a soxla woon waaw d' accord moom laa gën a soxla mu woow d' accord ma faj aajam d' ma ñëw ci wàllu kurus gi sëñ bi kurus gi euh, yaakaar naa ndakaaru moom boo ko doon wër pour ñu koy yor bariwul kurus gi ni mu toll toll na toll na ni 4 mètres te nga toog ci àll bii di wéetal sa borom yor kurus gi kurus bii yor ko yomb na. Mhm. liggéeyee ko moo ko jafe. dëgg la. nga ci bi liggéey ko dafa métti. Mhm. lu man su ma su jullee gee. Mhm. ba berseeg neefeer ci suba laay tëddaat. allahu akbar. su jullee gee. du ma recevoir nit. ba neefeer ci suba laay tëddaat nelaw. nekk ci kurus su ma tëddee neefeer ci suba damay nelaw bu takkusaan ma jóg ma julli du ma nelawaat. neefeer ci suba kat laay nelawaat. kurus bi moo waral. maa ngi ci wird ngati nit ñi dañu maa soxla. Mm-hmm. nit ñi dañu maa yaakaar yaakaar mm-hmm. dafa foor. Mm-hmm. ñuy liggéey di yëkkati seen alal. di ma ko mm-hmm. jox. dëgg moo waral ñuy liggéey di yëkkati seen alal di ma ko jox man dama am salaire. Mm-hmm. dañu may fay ni ñuy fayee fonctionnaire. Mm-hmm. dama am ay taalibe yi nga xamante ne dama leen jël taal leen. samp leen. ci béréb liggéeykaay yu ñu nekk man maa leen fa samp. dëgg la nga ci sama kurus bii la. léegi nag weer bu nekk ñoom dafa am lu ñu may fay. kurus bi bu ma ko bàyyee ñoom fu ñuy nekk du ñu fa mun a jëm ci kaw. dëgg la ñuy am du ñu ko mun a am. dëgg la dama lay liggéeyal nekkoo dara. amoo dara. Mm. ma sampala booy boo sa vidéo mu takk mm. ma wax la demal nga ut liggéey boo utee di nga am liggéey mm. ma fekkee bu fi ngay liggéey di nga fa dem bu nekk fa njiit boobaa nga defal ma salaire weer bu nekk nga ne lii nga may fay ci kaw loolu noonu sax mën naa ci indi firnde ma ñëw fekk fi benn benn oto boo xamante ni sa benn taalibe moo ko fi indi euh, kooku lan nga lan nga ko ji ban secret nga am ak moom ba mu yëkkati oto boobu noonu ak ni mu seeree jox la ko waaw loolu noonu di kolam moo sedd ndeysaan mm-hmm. kolo mu set fii ni man oto kam luñ ma ko may mënuma kam ñaata yoon nga ti ñëw nga fi gis nga kër gi mhm. gis nga tabax gi mhm. lu nekk gis nga taalibe yi daara bi mhm. am na ñetti téeméer taalibe musuñu yelewaan dëgg la fii la ñuy lekke fii la ñuy naan loolu yëpp barke yàlla ak suñu barke maam ak suma liggéey bi ngati fii ni sumu papa dundul waaye sama maam mu ngi fi am na téeméer at ak ñetti at nekkatul ci biir dëkk bi nga ti mën a moom munuñ nekk ci biir dëkk bi mhm. dëkkam la yor dëkkam ak fii nii day nekk vingt seize kilomètres mhm. foofu la nekk moom foofu la toog moom du ñëw fii nii foofu la nekk góor kese mu benn góor moo fa nekk kooku moom ak kooku def nañu plus de quatre-vingts mhm. at kooku moo koy toggal moo koy toppatoo kooku taalibe am la Mauritanie la jógee la dëkk moom moom moo nekk suma sabab lépp lu mu am ci àdduna moom la moom moo nekk suma sabab ñun duñu ndamu alal nga ti am nañ nag dëgg la am nañ ay taalibi am nañu euh, bu dee ay kër ci àll lañ dëkk waaye mm-hmm. tabaxal nañu lépp li ngay war a soxla am na fii ci kër gi mm-hmm. oto yu rafet am na fii mm-hmm. waaye nekkul loolu la ñuy ndamu ñun lu ñuy ndamu mooy faj soxla dëgg la dëgg la foofu noonu ngati sëriñ loolu ngay ndamu faj soxla ngay ndamu dëgg la faj soxla tan la ñuy ndamu dëgg la sëñ ma ñëw ci lii nga yor muy kaan man kaan laa ko mën a tuddee lii jaaxal na ma trop maa ngi ci gis ay pettaaw ay seetu lii lan mooy secret bi eh, ah, bant bii nii nga ay pettaaw moo ci nekk ak ay seetu kii dama koy faje soxla yu bëri. Mm-hmm. dama koy faje soxla soxla yu bëri. Mm-hmm. kii dama koy sampee nit. samp dama koy sampee nit. Mm-hmm. kii su may liggéeyal nit ma jot ma am sa tur ngati man ñi may liggéeyal ñu bëri duñu tegante bët. ñu may woo may faj seen soxla. damay gas kamb bi su ma ko gasee bu mu moom laa koy defee mètre moom laay mètre kamb bi. su ma ko mettre fu mu toll ma bind lu may bind ak sunguf bi ma ma sol ko ci ba fu mu toll mm-hmm. ma toog dig ci wirdu am lu ma ci teg ma ci wird ma wirda ci ñetti fan mm-hmm. soxla loolu soxla bi nga xamante ne yaa ngi nekk ci urgent yaa ngi nekk ci kat kat mm-hmm. soxla bi def koy forcé ma faj soxla bi allahu yaa ngi nekk ci kat kat nekk ci urgent soxla bi dañ ko war a faj ci kat kat nga nekk moom laa koy defee ma faj soxla bi ci ñetti fan dama dama lay wax teel sa alal moo jox la app mu wax la damay faj soxla bi mu faj soxla bi. Mhm. waaw. Mhm. ma ñëw ci wàllu am doom. Mhm. ma gis ci benn femme boo xam ni nee na moom sëy na presque cinquante ans xamu nu ñu koy waxee ci olof mënta am doom ma ñëw fekk ko fii muy jooy téye doomam ni da la koy jébbal nga yóbbu ko ci daara ji lo lan mooy lan mooy sa secret ci wàllu am doom. kii nii kenn danga nga juum fanweer at. des na fanweeri at waaw ci ci ci néegu sëy. waaw mu ngi sëy fanweer at. bu ma koy kam. yaayam moo nekk suma taalibe hmm. moom mu ngi doon sëy nga hmm. moom dafa kaaw nekk nit bu kaaw tuubaak moom gémul kabar sëriñ waaw sëy na fanweer at am na alal dem na fu nekk ci àddina bi moom moo ko wax sa nopp. Mhm. man du ma nangu taalib bi mu ngi génn tele wala mu ngi génn rajo. nga du ma nangu ngay wax. mais wax na ma dégg. moom wax na ko seen kanam. Mhm. moo bu mu wax ngeen wone ko ci télé bi mu wax. ma ne ko mhm. déedéet. man du ma nangu kenn ñu lay wone ci télé. dëgg la dëgg la dafa amay mbokkam dafa amay nitam. dëgg la du ma bugg loolu li ma ko defal euh, na ma bay ak yàlla. dëgg la yaa ngi dégg. dem na fanweer at ci néegu dem na fu nekk ci àddina bi. Mm-hmm. ci hôpital dem na fu nekk. Mm-hmm. munul am doom. Mm-hmm. dafa ñëw ba nit ñi ñëw ñu ne ko doo am doom. ma ne ko di am doom. dëgg la bu ñëw bu toog ma xoolal ko ma xool lu nekk ci moom yëpp ma ne di nga am doom doom bu jigéen ngay ñëkk am. te pare wul am doom dina amaat ñaari doom yu góor benn bu jigéen ñaari góor lay am. te li ci garaaw moom nee na bi mu demee ci médecin yi dañ ko yow dañ lay opéré. moom moom moom moom bu mu njëkkee. bii yow bu njëkk bi fekkee woo waaw doom bu jigéen la njëkk am. Mm-hmm. mu ñëwaat mu war a amaat doom bu góor bii ni mu dem mu mu war a wasin mm-hmm. ñu nekk bu da dañ lay opérer. waaw mu ñëw mu ne dañ ma opérer ma nekk ma bind lu may bind ma nekk ko am naanal li ma bind lu may bind ma ne ko sangol ma ne ko kenn dul la opérer. na ma ko di nga wasin doom bi boo tëddoon sa néeg sax nga nga war a wasin di nga wasin foofu doo am gàllankoor. wax na ma bu mu demee hôpital. dañu ko programme woon dañu koy opéré. Hmm. waaye balaa ñu koy opéré bu fekkee wasin na. te wasin na wasin bu bu jaar yoon. Hmm. loolu mooy yàlla la ak tamit nangoo liggéey. dëgg la Serigne da ngay sonn tan yàlla fay la. dëgg la yàlla dafa jaay de. dëgg ngay nangoo sonn mu fay la. dëgg la ngati ñun bu ñu nekk kale di liggéey nekk kale di jàng. Hmm. bu ñëwoon ci ay kër nekk ay taalibe yu ndaw di yelawaan. dañuy kol dalla yu dagg. ñu leen dalla yu dagg am na foofu noonu. jox leen yi. am na yëre yu xotteeku yu nekk foofu may leen ko taalibe yi yëre yu yu yàgg yi. Hmm. ceeb bu desee ñu naan jox leen ceeb bu des bi taalibe boo hmm. muñee ci loolu nangoo jàng. Hmm. boo màggee nga nekk sëriñ. dëgg dañuy rey reyal ay nag. toggal la. dañuy naan xool leen lu gën a baax ci cin bi. ngeen tibbal ko sëriñ bi. ndeysaan dañ lay tabax dañ lay xoolal kër bu ñëwoon ci kër. dañuy xool wax xoolal néeg bu gën a rafet bi bu am bu gën a am kilim bi. néeg bu gën a baax bi nga jox ko sëriñ bi. dëgg dañ lay jëndal ak yëre. Mm-hmm. ñu xool mbasin yu gën a rafet. Mm-hmm. ñu naan jox ko sëriñ bi. Mm-hmm. loolu nangoo liggéey moo koy def tàmbale bi. du baax waaye bu yàggee boo tabaxee tan di nga di nga ci am lu baax. loolu la ñu naan loolu sëriñ da ngay liggéey da ngay liggéey ñu fay la. dëgg la. ñun dañoo liggéey sonn nañu. lu mm-hmm. nekk dañ naa ko. Mm-hmm. man bàyyi naa fi xam-xam sama papa sama maam ñëpp am nañu xam-xam. Mm-hmm. pël bu nekk ci àdduna bi xam na leen. bàyyi naa ko fi dem naa fi ay Burkina. dem naa ay Niger. dem naa Mali. dem naa kon Guinée. fu ñu wax boowe. yëpp di ut di ut xam-xam. ndeysaan waaye bu ma ko amee man maa ko njëriñu nga tey pël yi. samay mbokk kes nga fekk. ñu nangul ma. loolu moomu génn li mu am ci àdduna. waaw foofu tamit bëgg naa ñu taxaw fa parce que gis naa ni bi ma ñëwee avant ma agsi fii nii quartier bi dama def ay micro trottoir laaj parce que man tamit du ma ñëw génnee loo xam ne wóoruma mais say mbokk ñoo njëkk ni ah Thierno Boubacar kat wax dëgg yàlla defar na dëkk bi faj na aajoy dëkk ba pare doo ko génn di faj aajoy ñeneen. bis bu nekk lu daw daw dina am ñaar fukk nag. allahu akbar. samay mbokk pël ñooy takk seen nag di ma indil di ma jox ma leen di liggéeyal. allahu akbar. bis bu nekk da ngay ñëw fii dinañ rey bis bu nekk dinañ rey juróom wala ñeenti xar ci kër gi. ñoom ñoo koy indaale. Hmm. man duma def dara. lépp ñoom ñoo koy def. Hmm. samay nag ñu koy sàmm duma leen fay ñoom ñoo koy def. Hmm. samay tool ñu koy bey du leen fay ñoom ñoo koy def. lépp noonu nag samay mbokk lañ. dëgg la. xam nga loolu noonu la mu waral. Hmm. ñoom samay mbokk lañ su may nawle lañ. Hmm. samay am nañ ci samay doom bay. Hmm. lu tax ñu du du du du doole du dara moo tax ñu defar boog. li ma nangoo liggéey suma kam-kam rek moo waral ñu defar boog. moo waral ñu jox ma cër bi. loolu boo ko ñàkkee ñàkk nga lépp. dëgg la moo waral amoo loo war a tiitaroo amoo loo war a ndamoo sudul sa kam-kam ñun tiitaroo wuñ dara ci àddina ndamoo wuñ dara ci àddina sudul suñu kam-kam la moom kese mooy lu ñuy ndamoo dëgg la waaw dañuy ñaan nit ñi nag ñu gën a góorgóorlu dëgg la bu dee wax nga sëriñ nga mhm. <coughs> da ngay góorgóorlu mhm. ngati ku wax man ci yoonu yàlla laa jëm mhm. ah kooku de moom dafa war a góorgóorlu dëgg la waaw war a góorgóorlu dëgg la euh, ma ñëw ci li nga xamante ni moo di boppu jësit bi man bi ma ko fekkee sax damaa tiit bopp jasit bi lan mooy secret bi. kii luñ ciy def euh, dafa bëri bopp jasit bi luñ ciy def dafa bëri lii nii dañu koy liggéey ngóor góor bu dem ba nekkatul góor. Mm-hmm. nekkatul góor amutul yaakaar ci boppam nekkatul góor. Mm-hmm. moom lañu koy liggéeyee. impuissance sexuelle. waaw moom moom moom lañu koy liggéeyee. Mm-hmm. jigéen. amul munoo am jëkkër. boo dem nga amatoo yaakaar mënutoo am jëkkër yaa xam noonu sa at nu mu mënta toll. Mm-hmm. amal at nu mu la neex. Mm-hmm. lii moo ci gaaw juróom-ñeenti fan. Mm-hmm. neuf jours. ma faj aaju nga am jëkkër. allahu góor mun foo mënta toog ci adduna bi noonu. du ma la yónnee sangat du ma la yónnee dara. bu dee nekkoo góor. dem nga ba nekkutul góor. man may liggéey lu may bind ma bind ko ci bopp jasit bi. ci laa koy def ma liggéey yàlla bu soobee suñu borom. guddi boobu noonu na fekk nga nekk ak sa soxna. allahu akbar dinaa la def góor te lu des sa dund da ngay dee ak sa ngóora. moom laa koy liggéeyale. d' accord ak jigéen bu mënul am borom kër. d' accord mhm. euh, keroog ma ñëw. Mhm. Euh, bi ma ñëwee ma woo la téléphone nga nekk ndakaaru mhm. bi nga nekkee ndakaaru euh, presque jox xatoon na trop nit ñi jot la. Mm-hmm. am kilifa am kilifa gu fi indi ba man woo naa la sax nga ni ma fii ma toll nii damaa xat. Mm-hmm. mënumaa recevoir kenn lan mooy sax secret ba boo ñëwee Ndakaaru rek indi fi embouteillage coow li bari. Eh, ngati bari naa fa ay taalibe. Mm-hmm. bari naa ay taalibe. kooku noonu boo gisee mu ñëw foofu. moom bu ma koy kam. amul dara. bu ma koy kam kafe kafe lay jaay kafe tout. kafe. Mm, kafe lay jaay. boobu bu ma koy kam nekkul xay Ndakaar. Hmm. maa ngi ko kame fu ñuy wax Mbuur. Sali. waaw. boobu bu ma ñëwee Sali fu ñuy wax Mbuur Sali. Hmm. am na suñuy kër dëkkandoo mu ngi fu foofu lay wàcc. Hmm. bu ma ñëwee moom day jaay café bu ñëwee fekk ma ci buntu kër bi ma toog di wirde mu naan ma gàmm dama laa may kafe moo ko man du ma naan café waaye mun nga ma defal ataaya. day bàyyi jaayam bi. lu mu war a dem jaay. mu toog mu may defal ataaya. allahu akbar mu dem jënd ci kaalisam ñëw toog di ma defal ataaya mu nekk foofu noonu nekk foofu noonu mu ngi koy def ay yoon yoon ma xëy ma ne ko waa léegi baax na dama lay bàyyi ak sa bopp. Mhm. ma liggéeyal ko ma ne ko demal réew mi di nga fi génn bu soobee yàlla boo fi génnee boo fi ñëwaat tamit da ñëwaat ci ñëwaat bu rafet. Mhm. ci TVS buur yi fu muy nekk foofu la ko jigéen bu tubaab gis gis ko bugg ko mu takk ko. mu takk jigéen fu ñuy wax Suède. Mhm. mu nekk foofu ak moom. tey am na ndakaaru ay kër yu dul jeex moom moo ñëwoon mu ne day tabax tabax këram bu mu rafet mu nar ci dëkk mu ne ma ñëwal. waaw fu ñuy wax mer muus. Mhm. mu ne ma ñëwal. ma ñëw foofu noonu ci kër gi ma xool kër gi. Mhm. ma defal ko ci ñaan bi mu fi ñëwee noonu nit ñi yëg na ñëw naa waaye mënu ma recevoir kenn. man sax man sax xatoon na man kii ma soxla sama dëkk nga may fekk. foofu laay liggéeyee. loolu kese moo fi indoon ndax defal ko ñaan ci kër gi. ngar ci kër. Mm-hmm. dañu koy seet. dëgg la. jabar. Mm-hmm. dangay seet. dëgg la. wàllam oto. Mm-hmm. lépp li nit di am ci àddina li nga xamante ne mun na la indil gàllankoor. bala nga ci dugg dem koy seet. dëgg la ah. ci foofu noonu laa ñëwee li nga xamante ni mooy combat Balla booy Boy Niang mu indi polémique bu bari ba ñu bari naan combat bi day am wala du am combat boobu ban njàngat nga ci am. waaw ah, xam nga man ci wàllam ah, kabar yooyu man kaw ma ci lu bëri. waaw nga ci nekkum ci nit yooyu. moo waral man loolu duma ci mun a kam. waaw waaw xëy noonu ñuy def ay lamb ñu bari am na ñu doon ñëw ci man. Hmm. jamono yii kam dama bàyyi nii di ñaan ci lamb. waaw am na ñi nga te ne man samp naa leen. Hmm. fukki at ak lu teg. Hmm. ñu ngi fii ci réew mi ñoom kam nañu kam naa leen musuñ daanu. dëgg la buñ ma waree. ma ne da ngeen di daanu te doote leen ci lamb bi bis boobu laa bàyyi lamb. ay lamb nekkatuma ci. dëgg ci wax. du ci sori lu ma gën a bëgg a wax. Mm-hmm. mooy si wàllu li may liggéey. Mm-hmm. ak nit yu nekk ci réew mi. Mm-hmm. ñuy lekk seen alal. buy lekkee sa alal bu dee kii lekk kooku toogaay sëriñ la toog. di ko tooñ tooñ dina tooñaale sëriñ yi. nga ci yëpp ngay wax. booy wax da ngay naan sëriñ bi lekk na suma alal. sëriñ bi tiriyaan dina am. fekkee moom kenn nag moo indi tur bu bon boobu yëpp ci sëriñ yëpp. man ñooñu laay loolu ñooñu moo tax ma nangoo génn télé. nekkul ci ay lamba. jërëjëf ñooñu moo tax ma nangu génn télé ndax xamal ñooñu noonu. ku bon am na de. Mhm. kuy lekk alal jàmbur am na de. Mhm. waaye tamit sëriñ am na ngati yàlla moo bind sëriñ. jërëjëf fajkatu aaju am na. waaw ñooñu noonu nag. Mhm. laa soxla faj seen aajo ci neuf jours duma leen laaj alal. duma ma la laaj dërëm. ma faj sa aaju bu bu ma fajee sa aaju ma wax lii nga may fay nga fay ma. jërëjëf loolu moom gën a ñor. jërëjëf léegi noonu nag damaa jàpp. da ngeen ñëw fii dama mu guddi. dëgg la damaa war maa ngi leen di ñaanal. fanaan leen ba bërsëg boole kii ngeen dem jërëjëf maa ngi li ñaanal yoonu jàmm jërëjëf ak salaam jërëjëf sëñ bi bismillah jar ngeen jërëjëf jërëjëf mu ngi noonu mbokk yi vraiment moo nekkoon suñu invité di Thierno Boubacar Diallo moom lañ fas yéene woon seqal waxtaan wu yaatu fii ci Fouta di leen jox yeneen daj yeneen dig daje ci suñu grande émission fii ci People 221 jërë ngeen jëf